n'interdisait euh, aucune, aucun poste euh, député, euh, maire, président de la République. xam nga li ma la wax li ma tax a jóg c'est c'est dans la citoyenneté c'est-à-dire essayer de servir mon pays autrement ma bañ c'est-à-dire dem nekk à mon propre service loolu pour ma def ko je pense que il nous faut peut-être passer par la politique pour que nit ñi déglu parce que la période actuelle c'est la période des élections présidentielles xam nga quand on dit le capitaine Touré élections présidentielles l'objectif d'un candidat dama am objectif yoo xam ne peut-être dernier objectif bi moo nekk euh, euh, nekk président mm-hmm. parce que boo xoolee tey am na ay parti yoo xam ne quand même depuis sept ans huit ans ay Pastef yu nekk fii di xeex yeneen parti yow mënoo ñëw tey rek nga am ay prétention nga ne dinaa nekk président loolu ça va être difficile donc man sama objectif pour l'instant c'est jaar peut-être si élection yi pour mën a sillonner le pays ut ay parrainage mun a am une base de données mun a implanter surtout on a un projet de ce qu'on appelle des bancs c'est ce qu'on appelle des bureaux d'assistance nationale des citoyens yoo xam ne dañ ko bëgg a am si ay bénévoles yoo xam ne dañ ciy toog eh, ñu bu ñu defee aussi suñu tournée ba pare ñu mën a def un rapport détaillé sur chaque zone lu ñu sa am ba pare après les élections on pourra parce que mënoo tey élection am ba euh, ñu nekk ci période électorale ba euh, loolu jàll ba pare nga ne yow da ngay commencer tourner ba dañuy naan yow da nga yàpp Sénégalais yi actuellement c'est la période c'est là je pense que les gens ont assez de liberté parce qu'ils sont candidats Donc nous ferons, on essaiera de voir avec les moyens qu'on a, si, avec si, les si cotisations. Si je comprends bien, ouais. euh, de nous utiliser euh, ce pas contexte utiliser. Euh, électoral comme pas, tribune. Pas utiliser, c'est Comme tribune. Pas tribune. Euh, et non, yo, l'île Sohol, vraiment, c'est pas le poste de président de la République. Le poste de président de la République, l'eau pour moi, il y a le mot yàlla bu bindee ne capitaine Touré mooy nekk président 2024 loolu kenn mënu si dara bu waxee ne Sonko moo koy nekk kenn mënu si dara mais comme ni ma la wax parti boo gis am na objectif gis nga euh, Pastef ñoom bu ñu leen di créer moi j'ai vu des images yoo xam ne ils étaient sur des pick-up ils étaient quatre ou ils étaient cinq mais temps yooyu noonu xamoon nañ ils seront pas président mais ils étaient sur le terrain moi ce qui m'intéresse comme je vous ai dit c'est pas la politique c'est ça je veux d'abord aller étudier la zone connaître maintenant si dans mon discours les gens si retrouvent ñu parrainé ma ñu jox ma seen i mais j'irai aussi ça dépendra des intérêts euh, qui yaa ngi ci liste électorale yi. yor nga sa carte électeur sama carte électeur bi. alors sa sa sa radiation bi. Mm. ban changement la indi. Mm. Euh, ci sa ci sa ci sa ci sa vie civile. non mm. oh, indiwul benn radiation. wala wala wala radiation bi. c'était texte bi lan la au plan militaire. am texte texte bi lan la wax là vous êtes un civil. Voilà. avec tous les droits. le texte de dit que si je suis radié dans les six mois je ne peux pas prétendre à un texte à un poste électif c'est la c'était la seule barrière je pense qu'on est à trois ans maintenant. Donc il n'y a aucune barrière. Donc là, vous êtes redevenu un civil. Un civil. Et vous, vous de tous vos droits. Droit. Euh, si peut-être bu ma génnee émission bi ñu jàpp ma mandat de dépôt ma. te même loolu yaakaaruma ne jugement bi mën na am d'ici 2024. mais ñu mandat de dépôt la pour la. ah mais on sait jamais. xam nga non mais je m dire pour ban bon jugement. mais mais c'est on sait jamais. <laughs> xam nga on est jamais comme ni ma la wax rek man ci wàllu yoon laa. bu ñu la bu ñu la yóbboo dañu may yóbbaale. ah non ah on sait jamais yàlla baax na yàlla <laughs>